alhamdulilahi rabbil aalamiin wa sallallaahu wa sallama alaa nabiyyinaa Muhammad wa alaa aalihi wa sahbihi ajmaiin yaa ayyuhaa allaziina aamanuu ittaqullaaha haqqa tuqaatih wa laa tamuutunna illaa wa antum muslimuun mbokk jullit yi ñu ngi sant suñu boroom subhaanahu wa taala ñi ngi seede ne yàlla dong moo yeyoo ñu koy jaamu moo yeyoo ñu koy yaakaar moo yeyoo ñu koy ragal di sukkandiku ci moom nañ koy jaamoo it waruñu koo jëli ludul ca lam yónni woon ab yonentam muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam gannaaw loolu mbokk julit ñu ngi leen di dénk ngeen ragal yàlla jéem caa sax ba bis bu dee di ñëw fekk leen yéen a ngi ànd ak màndargab ñay dee yaale ragal yàlla yal na yàlla jagleel ñu ko loolu nag boo ko bëggee am da ngay bàyyi xel bu dee da ngaa nekk ca mbooloo ma bu dee ne da ngaa wéet foo tollu bàyyil xel sa boroom bàyyil xel ay ndigalam ak i tereem ca xam ne yàlla moomu amul lenn lu koy ump ci mboolem lu jaam yi di def ci lu nëbbu ak lu feeñ su ko defee ki màndargaa lii day texe na àdduna texe na àllaaxira mbokk jullit xamal ne ab jaam day lay melokaanam bi gën a tedd ba muy taxaw ci kaw suuf mooy muy yegg ci melokaan boo xam ni mi ngi sax ci ndigalu yàlla yi di daw tere yàlla yi loolu moom mooy màndarga bi gën a rëy bu doomu aadama di melawoo yàlla ak i malaakaam gërëm ko ak nit ñu baax ni mu bokk ci waaju baax lay doon ay melokaanam mooy heure bu jógee ci lu baax ma nga jëmaat ci lu baax mi ngi noonu su ko defee jaam bi day xam ne yàlla day mooy texeel ku ko neex ci ay jaamam mooy texee dil ku ko neex ci ay jaamam waaye nag dafa am sabab buy tax nga bokk ci ñi yàlla teral daa am sabab buy tax nga bokk ci ñi yàlla toroxal waaye yàlla du génn ay jaamam rekk teral ñii toroxal ñii mu jeex déedéet lépp lu mën a doon da koo utal ay sabab su ko defee yow jullit soo bëggoon a xam ana yan melokaan yan mandarga mooy nekk ci man ngiree ma mën a texi loolee boroom xam-xam yi dañ ko tënk ci ñetti mandarga mandarga ba nga xamee ni nii moo ci jëkk mooy heure bu la yàlla xéewali nga yëg xéewalu yàlla ci yow sant ay xéewalam ñaareelu mandarga ba heure bu la yàlla nattoo nga yëg ne ab jaamam nga bu mu am sañ-sañ def lu ko neex ci yow nga muñ nattu ya ñetteel ba heure boo yëgee ne def nga bakkaar bakkaar boobee nga daal di koy tuub dellu ci sa boroom mbokk ñett yi mooy màndarga texe léegi nag bu ñu xoolee bu jëkk bi mooy sant xéewalu yàlla doomu aadama yi ñu bari ci ñoom jàpp nañ ne ñi ngi sant waaye mbokk xamal ne ak cant day yàlla moo koy jaarale ci lan mi ñu yonentam na ko ca neexe su ko defee fokk yow jaam bi nga xam ne sant munta nekk lu dul ci ñetti mbir yi daje ca mbir mu jëkk cim cant mooy nga yëg ne kat man yàlla xéewal na ma mbokk lu ëpp ci doomu aadama yi ñi ngi nekk di jàmbat guddi di jàmbat bëccëg ca moo ne day ñu leen wër ak ñu bari ñu leen ca ñee ak ñu bari ñoo xam ne genn wàllu la mu am sax ñoom buñ ko amoon jàpp nañ ni bànneex yi àdduna yépp dajale nañ ko waaye li ëpp ci doomu aadama yi xamuñu xéewalu yàlla ci ci ñoom ca wallahi yonent bi alayhi salaam daana wax ni su dee da nga xëy yàlla may la jàmm ci sa ab dëkk may la wir gi yaram nga am loo dunde bi su keroog àdduna bu doon am kuuya jàpp nga ca béjjani di ko diri kenn ëppaleetu la ca loolu mbokk da ngay gis tey jii quatre-vingt-dix-neuf pour cent doomu aadama yi am nañ ko waaye gisuñu ko ku nekk yaa ngi xool ka la ëppale ku ne yaa ngi xool la la féete kaw looloo tax du ñu mën a sant xéewalu yàlla waaye jullit da ngay yëg ne yàlla xéewal na la nga yëg ko yëg googu nag day jóge ci sa xol nga xam ne lii ci yàlla dong la jóge du samay pexe du pexe kenn ku dul yàlla amul kenn ku mu mën a jëriñ ku dul yàlla gannaaw loolu it sa làmmiñ wii ngal la waay nga feeñal ca cantut borom bi ba heure boo xamee ni nii doomu aadama yi gis nañu la du ñu yëg ci yow lu dul ne diw day jaam la buy sant yàlla jeex na mu uteeg li ëpp ci doomu aadama yi nga xam ne tey li nga moom la ñuy feeñal diw na nga def sant sëñ diw mbokk loolee da ngay gis ne ci li gën a garaaw ci shirk ca la bokk xanaa sëñ diw moo la bind xanaa sëñ diw moo lay sàmm xanaa sëñ diw moo lay wërsëgal loolee mbokk déedéet jullit na nga def mooy alhamdulillah looloo tax ba ci téere yu jëkk yi xeetu yonent bi ñu ngi leen tudde xammaadiin mooy santkatu yàlla yi te wallahi ba baa 40 ans ci gannaaw sunu maam yi doon dund Sénégal yépp xamuñu woon na nga def ñu ne sant sëñ caam xamuñu ko woon na nga def sant sëñ beng xamuñu ko woon koo ci masaan wax na nga def alhamdulilah la ñuy tontu Sénégal ba Sénégal daj alhamdulilah la ñuy tontu ba baa yàlla di indi lim ñu nattoo waaye ngalla waaye sa làmmiñ bii bu mu ci génn lu dul sant sa boroom alhamdulilah waaye nag gannaaw loolu mbokk jullit xéewal yooyee nag nga delloo ko fa neex yàlla ca mooy lan yàlla may na la wér am na ñu paralysé seen lalu hôpital nee nañ hayya ala sala jógal jàpp taxaw ci kanamu yàlla sant yàlla ci ne yàlla boole nga ma sa jaam yi mën a taxaw mën a rukkoo mën a sujjuut am na koo xam ne tey li mu yor ci alal yépp bu ko mënoon a joxe ca mën a jóg taxaw rek rukkoo sujjuut jaral na ko tey yàlla may la ko kon nga sant yàlla ci loolu sant yàlla ci bët yii la yàlla may xañ ko des millions nga jëfandikoo di ci xool li neex yàlla nopp yi di ci déglu li neex yàlla alal ji la yàlla may nga fexe ba def ko fi neex yàlla njaboot gi la yàlla may des millions ci ay jaamam bëggoon a gis doom bu jóge ci ñoom mënuñu ko am njaboot googu nga sant ci yàlla tàggat leen ci li neex yàlla sàkku ci ngërëmal yàlla mbokk kon sant mooy loolu sant dañ koy jëf moo tax suñu borom ne daawuda alayhi salaam jëf leen yéen ak seen njaboot ak cant i'malu ala daawuda shukra wa qalilun min ibadiya shakur lu néew samay jaam nag ñoo may sant waaye yéen njabootu daawuda jëf leen ak sant te mooy lan def ndigali yàlla yi bàyyi ay tereem xéewul yàlla yi nga delloo ko fa neex yàlla lii rek mooy sant wala fi dañu naan ku la abal ay bët nga xool fa ka neex mbokk yàlla nag moo ñuy abal lépp lu nekk ci ñun ba tëg nopp ak wéréb lu mu mën a doon borom boobu it ci mbaaxam nee na fii ak yéen a ngi may sant may dolli sumay xiiwal ci yéen mi ngi noonu wa istaazana rabbukum la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid su ngeen weddee samay mbugal lu tar la mbokk yàlla lam lay dolli nag bul jàpp ne ab xaalis la rek de déedéet yàlla subhanahu wa taala mën nga koo lebal xaalis mu fay la jabar ju baax wala jëkkër ju baax nga lebal ko alal mu fay la doom ju baax may la wér may la nangam xéewalu yàlla kenn mënu koo peeg waaye lam la ca jox njaboot la alal la xam-xam la lum mën a doon suñu borom nee na tànk yéen a ngi sant maa ngi dolli la in shakartum la azidannakum loolee kon mbokk ñu bàyyi ci xel bu baax amma ñaareelu mandarga yi texe mooy lan mooy jaam bi heure bu la yàlla nattoo nga daal di muñ muñ gu rafet e yéen mbokk jullit xamal ne adduna bii ñu nekk kërug nattukaay la suñu bàyyi aadama ba ko fi yàlla di indi prison la ci moom yàlla da ko fi indi ngir natt ko àjjana lañ cosaanoo yàlla indi aadama kaw suuf ngir teg ko fi ay nattu moom njabootam ñu réussir ci natt yooyu la yàlla di jël nag delloowaat leen ci kërug aljanna ga yal na yàlla boole ñu ci su ko defee ki texee di ki comprendreul mooy ki jàpp ne àdduna moom kërug noosukaay la noo mën a dajalee alal dajale noo mën a dajale ay jongama dajale loo mën a def rek na nga fexe ba dund gi baax déedéet mbokk julit àdduna këru nattu la yàlla mooy nattu ay jaamam loolu tax suñu borom yàlla subhanahu wa taala ni wa nabluukum bi charri wal xayri fitnatan wa ilayna turjaun danaa leen tegale natt yu neex tegale leen ay metti waaye xam leen ci man ngeen di jëm mbokk jamono yi gannaaw coono yi yëpp mu ne bégalal bashir bashiri sabirin bégal leen te mooy képp koo xam ne bi natt bi dalee sa kaw nangu nga ak njaam gi yàlla am ci yow nga ne yàlla inna lillah suñuy ñu say jaam lañu wa inna ilayhi rajiun àdduna dañ fee jaar ci yow la ñuy teer si loolee suñu borom nee na ñu mel nii day danaa leen gërëm salawaatu min rabbihim danaa leen yërëm wa rahma wa ulaayka humul muhtadun danaa leen may alhidaaya ca mooy danaa leen jubal loolee mbokk di daraja yu kawe moo tax ba ñi gënoon a tar ay natt ci kaw suuf ma yónente yàlla yi doomu aadama nu sa diina kawe noonu la say nattu di toll donte ne nattu yi léeg-léeg yow yaa koy xam yaak sa borom waaye ku la ëpp diine moo la ëpp ay nattu ci kaw suuf lu waral loolu ngir daraja ak ngërëm ak teraanga yay ànd ak nattu yàlla di ko jagleel ku ko neex ci ay jaamam kon loolu mbokk mooy mbir bi am maa ñetteelu melokaan bi nga xam ne jaam bi da ko war a bàyyi xel ca mooy wànne ne yow bokk nga ci ñi texe mooy heure bu la yàlla nattoo ci bakkaar nga daal di koy tuub tuub bu sell mbokk yàlla moo bind malaaka yi mënuñu def bakkaar yàlla bind nit ak jinne ñuy def ko ci bakkaar sa diine fu mu toll sa xam-xam fu mu toll fokk yàlla tarxiisal la nga def bakkaar su ko defee ki gën ci ñay def bakkaar yooyee mooy ka nga xamee ni nii heure boo ko yàlla nattoo mu def ko day daal di tuub dellu ci yàlla du bokk mukk ci ñi texee di naan ah waaye lii kenn mënu koo bàyyi lii kenn mënatu ko fee bañ lii nangam nangam wala ah waaye naa xaar ba ci kanam déedéet fa mu yéege ne def na bàkkaar bi lay daal di tuub dellu ci yàlla suñu borom yàlla subhanahu wa taala nee na ñu mel nii ñi nga xam ne bu ñu defee ñaawteef wala ñu tooñ seen bakkan daal di jéggalu yàlla mu ana koy jéggale bàkkaar ku dul yàlla doo leen fekk mukk ñuy sax. ca la nga xam ne moom la ñu nekk gannaaw ba ñu xamee ni lii lu baaxul la borom bi nee na ñii day danaa leen jagleel njëggal danaa leen jagleel ajjana yi nga xam ne dana daw ci suufam ay dex ñu sax ba faw lii day mooy gën jaam màgg ci pay ci aju liggéey gu muy am su ko defee yow mbokk jullit mi ngi noonu ngan la waay sa borom yàlla xamal ne amul bakkaar bu mu dul bale yow góor jigéen li ngay bon bon bon caga bi gàddub saagam li muy bon bon bon agresseur bi jàpp na maslan rey ñetti nit juróomi nit li ngay bon bon bon ngal la waay suñu borom yàlla xamal ne dana gërëm jaam bi tuub dellu ci moom da cay boole kontaante moom mi nga xam ne mooy dogal lu ko neex su ko neexoon kenn du ko moy kon boo xamee ni nii moy nga ko ba pare mu dëppale la sa xol bii tuub nekk ci gaawal gaawal gaawal balaa loolu di génn sa xol tuubal dellu ci yàlla bakkaar bu lum garaaw garaaw booy tuub yàlla bal la bal bokk na ci bakkaar bi gën a garaaw bu doomu aadama di dund ci kaw suuf dem ba yaakaar ne yàlla duutu ko baal abadan loolu ci bakkaar yi gën a garaaw la bokk mooy alqanuutu min rahmatillah suñu borom mu ne yaa ibadiya alladina asrafu ala anfusihim laa taqnatu min rahmatillah bu leen dem mukk ba jàpp ne yàlla du leen yërëmati wa man yaqnatu min rahmati rabbihi ila daarun ku texee di réer dong may dem ba yàlla duutu ko baalati waaye nag mbokk julit baal googu it yàlla da ko wutali charte borom bi mu ne wa inni la gafaarun liman taaba wa amana wa amila salihan summa htada ñi yàlla di baal mooy ñi nga xam ne dañuy tuub dellu ci yàlla daal di gëm yàlla daal di jëf lu baax daal di cee jub mu lay wan ne ak i tuub xamal ne la gën a yey looy tuub mooy bokkaale ya loolu mooy la gën a yey looy tuub boo tuubul bokkaale ya tuub njaaloo gaag kiifir gaag lu mën a doon jaru ko suñu borom yàlla subhanahu wa taala du nangul yéeféer du nangul ab bokkaalekat kon tuubal ci lépp loo xam ne nii daana génn sa xol ak sa làmmiñ ci bokkaale gannaaw ba na nga tuub bàkkaar yi nga xam ne xam nga ko lii day boo ko defee suñu borom yàlla fokk dana doon koo xam ne nii dana la dana la boole ci ñi texal ci ñi texe su ko defee yow mbokk julit rawatina yow ndawal julit ngal la waaye ñu ngi dund àdduna boo xam ne course la ci dajale alal dajale ay diplôme dajale lu lu ak nguur ila axiri waaye texe nekkul ci loolu loolu dafa mel ni rek mirage boo xam ne dañ koy séen waaye boo yeggee nga xam ne du texe nga law yow ndawal julit maa ngi lay dénk xamal ne texe dëgg mooy fexe ba dajale ñetti yooyu ñu la wax di sant sa boroom di muñ di tuub say bakkaar lii day bu la fekkoon ngay baykat ca àll ba wala nga nekk ingénieur ca société ba wala scientifique ca laboratoire yi yépp a ci bokk yem maadaama yëg nga ne yow lii mi ngi ci yow xamal ne kenn ëppaleetu la ci kaw suuf yaa nga ca yoon ba su ko defee it loolu la la koy may mooy lu baax loolu yi bu ko yemele ci yow mbokk doomu aadama suñu borom nee na ñépp dañoo perte lu dul ñi nga xam ne dañoo gëm cay def lu baax di dénkante ak dëgg di dénkante muñ loolu ci saar yi gën a gàtt ci alquran la bokk mooy wal asr inna al insana la fi xusr illa allazina amanu wa amilu salihat wa tawaasaw bil haqq wa tawaasaw bis sabr su ko defee yow ndawal julit nga la waay fexeel mokkal wal asr képp koy ñeeti nit ko ci lamp wal asr ndax bokk na ci ñi nga xam ne nii min allazina amanu wa amilu salihat mi ngi gëm yàlla bokkaaliwu ko ci mi ngi jëf ndigal yi di bàyyi tere yi su ca bokkee day jar naa ñee ak lu mu mën a doon jar naa ñee waaye bu dee ne nguur ga mu yoro alal ga mu yoro siiwaay ba mu yoro biñ ko xoolee bokkul mu ne lazina amanu wa amilu salihat waatal ne dafa perte ndax yàlla bi ñu ko wax daa waat suñu borom ne wal asr maa ngi waat ci temps innal insana la fi xusr doomu aadama yëpp dañoo perte lu dul ñi nga xam ne dañoo sax ci yii lii mbokk kon ñu xam ni doomu aadama bi bëgg a texe ci lii lay sax mbokk jullit ñi ngi jóge ci weeru koor weeru koor googee ab entraînement la waroon a doon doon yóbbal bu ñu gunge ci fukki weer ak benn yi des waaye warul doon benn récréation benn repos ñu ne ah jóge nañ ci koor jeex na déedéet mbokk jullit moo tax yonent bi aleyhi salaam daan ñu ñaax ci ne weeru koor bi de bi mu jeexee balaa weer bi ci topp jeex di shawaal ku profité ba woor ci juróom-benni fan yàlla dana considéré kii at bi yëpp da ko woor bu la neexee tegale ko bu la neexee teqale ko woor ci juróom-benni fan nga la waay yaa ngi doon naafila ci weeru koor gi naafila yooyu du pour weeru koor rek continuer naafila yi di ko def sa biir kër yaa ngi doon génn ay sarax yu bari ci weeru koor gi ay ndimbal yu bari ci yaa ngi koy génne nga la waay fuqaraawu yi du ne weeru koor rek la ñuy xiif du ne weeru koor rek la ñuy aajowoo continuer loolu ya nga la nga doon moytu ci place yu bon ci weeru koor yow xale bu jigéen bi daan ko moytu ci col ci weeru koor waaye yàlla mi moom weeru koor moom moom yeneen weer yi fexeel daal di sax ci loolu te maa ngi lay bégal ci ne amul benn jaam buy dog jóge ca la naqari yàlla jëm ca lu neex yàlla lu dul yàlla wëlbati loo xam ne neexu ko woon ci dundam yóbbu ko ci lu neex ci ak dundam naka noonu amul benn jaam boo xam ne da ngay bàyyi lu neex yàlla dellu ci lu naqari yàlla lu dul yàlla xool la nga gënoon a bëgg sa dund mu wëlbati ko yóbbu la ca la nga xam ne neexu la suñu borom yàlla mooy pay ak doomu aadama yi ku nekk la nga xam ne moom nga jëf loolu moo tax ba mbokk julit nañu góorgóorluwaat delluwaat xool suñu bopp xool suñu njaboot jéem a texe adduna texe àllaaxira nuñ koy defee jéem a juboo ak suñu borom bañ koo bokkaaleeg dara def ay ndigalam bàyyi ay tereem yaakaar ko sukkandiku ci moom lu mu métti métti danañu ubbil bunt buñ jaar ba jàll lu jafe-jafe yi tar tar tar danañu xëcc li loolu nag àdduna la avant alaxira mbokk lii mooy la nga xam ne moom la ñu suñu borom yàlla dig ñu ngi ñaan borom boobu jàll wa ala yàlla nañu yàlla may texeeg àdduna texeeg alaxira yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi koy sant yàlla nañu yàlla boole ci jaamam yi muñ ay dogalam yàlla bu mu ñu teg lu ñu attanul yàlla nañu yàlla boole ci jaam yi tuub bépp bàkkaar boo xam ne def nañ ko natt bii nga xam ne wàcc na ci kaw suuf yàlla na ko yàlla teggi ci njéggalam ak yërmandeem la ko sabab muy suñu bakkaar yàlla bu ñu ko yàlla toppee yàlla na yàlla soppil ñu palaasam jàmm ak aafiya lépp loo xam ne nii ñàkkoon nañ ko ci yàlla na yàlla subhanahu wa taala remplacé ko ña nga xam ne jël na ko ci ci ay jullit yàlla na yàlla defal leen àjjana muy seen wàccuwaay ña nga xam ne dañ caa feebar yàlla yëkkati leen ca la nga xam ne mooy jàmm yàlla na yàlla aaral ñu suñu njaboot yi aaral ñu suñu jàkk yi aaral ñu jullit ñi may ñu aafiya fi dunya wal axira allahuma rabbana atina fi dunya xasana wa fi l axirati xasana wa qina وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة ما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين